gi de kenn ku ne ak sa gis-gis ci eh, ndax Ousmane Sonko daa war a dem ca pencum ndawi réew ma am déet def loolu ñu naan eh, eh, DPG muy déclaration de politique générale. Hmm, ñu koy tàmbali ci réaction bu euh, Bougane Gueye Dany euh, moom euh, daal dafa mettre premier ministre devant ses responsabilités comme ni ñu koy waxee moom njiitu gëm sa bopp di reprocher Ousmane Sonko ni moom daal. Euh, li ñu ko xamee léegi daal mooy ay discours yoo xam ne daa wuuteeg lool yi nga xamee ni moom la yoroon ca jamono yam nekkee ca kujje ga Euh, mu ne euh, calcul politique bi ñoom ñoo dem euh, ba dab ko te loolu nag dafay wone kanamam ba nga xamee daf ko doon nëbb loolu la Bougane Gueye dañuy wax ci communiqué bi nga xamee ni moom la siiwal Thierno Alassane Sall moom tamit ni jéem a sukkandiku ci règlement intérieur bu assemblée nationale ngir bañ a maanaam ngir dorobewu ci disposition constitutionnelle loolu Euh, dul rupture bi nga xamee ni euh, ñi nga xamee ni ñooy jiite réew mi moom la ñuy euh, woote moom ma njiitu république des valeurs ni régime bu bees bi euh, fi ñu koy xaar mooy mu respecter scrupuleusement euh, constitution bi euh, ak tamit jéem a defaraat yenn ci institution yi nga xamee ni jàpp nañ ni daanaka dañu ko yàq ci at yi ñu génn waaye Guy Marius Sagna bu yeewi askan wi moom gisewul noonu moom député bi nee na yónnee na sax lettre Ousmane Sonko di ko laaj di ko xamal ba mu ñëw assemblée nationale tant que disposition disposition yooyu nga xamee ni euh, moom moo andi coow li euh, réintégré dugalaatuñu ko ci biir règlement intérieur bu assemblée euh, nationale assemblée nationale boobu sax nga xamee ni ëllëg dina dalal jëwriñ yi nga xamee ni moom moo yor wallu finance ci débat d'orientation budgétaire député Benno Bokk Yaakaar ñoom tamit tey dinañu leen dégg ndaxte tey ci ngoon euh, woote nañu conférence de presse euh, su à 16h jotee lay doon dañu dem fale ci Ziguinchor euh, ñoom nag am nañ maire bu bees mu ngi wuyo Djibril Sonko à l'unanimité maanaam 77 conseils yi nga xam ne ñoo fa teewoon ñoom ñëpp ñoo ko voteel ba mu wutu fa Ousmane Sonko dégg ngeen ko sànq ci xibaar yi muy woo collègue mi yi ci liggéey bi. ñu jeexalee ko ci wàllu tàggat yaram ak euh, Moussa Niakhaté euh, international sénégalais euh, nar a delluwaat championnat bu France ginnaaw Metz bi nga xamante ni fa la tàmbalee woon. Euh, moom nag dafa war a signer Lyon euh, jóge fële ca Nottingham Forest signer Lyon euh, coût transfert bi nag ñu ngi koy estimer daanaka fanweer ak benn million ci wàllu euro moom Moussa Niakhaté ci diggante bi nag footballoon Bundesliga. jaxale ko ak euh, Copa America te ci guddi euh, Brésil euh, nar a ak Paraguay muy match bu am solo nag ci Brésil ndaxte première journée bi dafa match nul woon su defee faux pas mën na ko indil ay jafe-jafe ci qualification bi ci quart de finale yi soxna Fati. jërëjëf Cheikh Tidiane 8h incha xibaar yi dina dellu si waat gën a yaatu ñu desandi ak yow ci xibaar yi biti réew ci wolof. débat télévisé diggante Joe Biden ak Donald Trump xumboon na ci CNN. waaw xaw ma xumboon na xaw ma waaye métti woon na trop ci euh, président sortant bi soxna Fati ndaxte euh, atmosphère u débat bi daal nee nañu métti woon na tàngoon na trop waxante yu ñaaw yi tamit ci seen i euh, diggante waaye daal nee nañ quatre-vingt-dix minutes de débat yi lañ ca nemmeeku daal mooy Joe Biden moom anam biñ ko gisee dalul seen xel lool ndaxte nee nañu li muy wax pour nga dégg dégg ko déjà problème la euh, day dem bay fàtte euh, li mu bëggoon wax ba Donald Trump sax di ko ci tooñ naan ko li ngay wax dara laa ci déggul yow mi sax li ngay wax yow dafa mel ni xamoo ko euh, muy prestation boo xamee ni daal moom ni nga xamee ñoom la bokkal kan sax tiital na leen ku ci mel ni directrice ancienne directrice de communication bu Joe Biden jàpp ni daal débat bi moom c'était décevant baaxul dara ci ñoom ki nga xamee ni Ah, tamit euh, ancien conseil bu Barack Obama la moom moom mu wax moo gën a doy waar nee na euh, faw ñu changer candidat ah, ci élection présidentielle yi ñu jëm ndaxte Joe Biden mi nu mu tuddati waaw Joe Biden daal jàpp nañ ni mënul dem euh, nee na daal ci convention bi nga xamee ni war nañu ko amal convention démocrate yi nga xamee ni ci ay bés yi ñu jëm ci lañ koy amal nee daal war nañu fexe wut beneen candidat boo xamee ni moom la ñu teg ci kanamu Donald Trump sinon rek yëf yi du baax muy loo xamee ni fàtti dinañu ko topp xool fu muy mujjee. ñu dem fële ca Europe ak sommet Union européenne bi nga xamee ni moom lañ doon amal fan yi ñoom nag déggoo nañu ngir delloowaat wala bafa ki di Ursula von der Leyen ca boppu. Union européenne euh, ci euh, diirub euh, mooy deuxième mandat bi nga xamee ni moom la war a amal ba léegi ci répartition des tâches yi premier ministre Estonie di Kaja Kallas moom mooy yore diplomatie européenne ancien premier ministre bu Portugal Antonio Costa moom nag la ñu jox présidence conseil européen bi fële ca New Delhi tey ci suba teel foofu nag ca aéroport ba ginnaaw ay taw yu métti benn toit moo fa daanu ba faat fa benn nit enquête lu toll ci euh, juróom-ñeenti nit am ci ay euh, gaañu gaañu yu metti opération de sauvetage nag euh, jamono ji ma ngay wéy xibaar bu tiis fële ca Cameroun di ancien international Landry Nguemo amoon daanaka fanweeri at ak juróom-ñett. moom moo génn àdduna démb fële ca Cameroun ci accident nag accident circulation le fato moom Landry en Nguemo euh, ca xibaar sax moom jaaroon ci génération foot ñu xàmme woon ko ca Bordeaux Nancy ak Saint-Étienne di club yoo xam ne football na fa ci équipe nationale Cameroun tamit nekk na fa daanaka euh, ci diirub euh, juróom-ñeenti at 2006 ba 2014 moom euh, Landry Nguemo ñu koy ñaanal rek yàlla xare ko aljana jexale ko ci basket NBA muy lu mësul am ca championnat nord-américain de basketball papa ak doom. Euh, nara bokk équipe di basket LeBron James moom moo def lu ne mel ndaxte taawam bi di Bronny James euh, moom démb la ko Los Angeles Lakers drafté nga xamee ni ubbiteeg euh, saison bi ñoom ñaar ñoo nar bokk équipe ba soxna Fati. jërëjëf Cheikh Tidiane bu ñu noppee ci loolu dañuy àdd ci météo bi.